aussi am nañ si euh, li nga xamante ne moom mooy seen propre gis-gis mais laata loolu yëpp dañuy euh, dellu euh, fële si Ziguinchor parce que Ziguinchor bëri na ay jafe-jafe yi nga xamante ni am na fa bëri na aussi ay jàppante ci diggante ñi nga xamante ni ñooy takk dere ak soutien wu usmaan Ousmane Sonko yi. Euh, ñu ngi wax ay blessé ñu ngi wax euh, mort yooyu yëpp incha allah dinañ si dinañ si ñëw bu baax a baax mais bon euh, laata loolu yëpp dañuy jël ki nga xamante ni mi ngi foofu Ziguinchor di di Sadir Top Sadir Top maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Matar di nga xamante ne ñoo ngi seetaan en ce moment Walfadjri. d' accord Sadir Top présentement yaa ngi foofu ca Ziguinchor est ce que mun nga ñu décrire situation bi foofu. waaw fii de situation bi fi am Pape boo xoolee maa ngi génn sax pour mën la dox ambiance su ci boo ma mayee benn trente secondes sax may doxaale nii rek pour nga amaale l'ambiance du dehors mais fi li ma la mën a xamal daal mooy depuis trois jours un peu partout au Sénégal xale yi dañoo suivre ki nga xamante ne mooy seen leader di le président Ousmane Sonko pour def li nga xamante ne ñoo ngi ko tuddee veille patriotique pour défendre ce projet la mais surtout euh, obéir à la recommandation faite par leur leader politique muy le président Ousmane Sonko muy la désobéissance civile avec son lot de conséquences parce que fii may waxee ak yow nii maa ngi ci biti nii nii nii jàkkaarloo xale yi yéen a ngi dégg ndell yooyu normalement di ngeen ko dégg mm-hmm. muy loo xamante ne moo am en ce moment ici à Ziguinchor muy confrontation bu méttee méttee méttee diggante xale yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy les forces de défense et de sécurité parce que xale yi qu'est-ce qu'ils ont fait dégg ngeen déglu yooyu yéen a ko déggandoo mm-hmm. exactement voici la situation qui se présente actuellement ici à Ziguinchor c'est largement suffisant pour ngeen comprendre exactement li fi xew mais c'est une face à face féroce entre xale yi nga xamante ne ils défendent le projet ils défendent seen leader tëj yoon yëpp ngir défendre ki nga xamante ne mooy le président Ousmane Sonko bi nga xam ne moom la ne moom moo war a présenter wu demee à un procès boo xamante ne gars yi nee nañ du fa dem. loolu daal mhm. mooy situation bi fi nekk fii muy xeex bu metti nag depuis ce matin mi ngi commencé am na ay blessé yaa naa qui disent que y a mort ou pas loolu wóoraguñu parce que officiel agul mhm. mais ce que nous savons effectivement il y des blessés parce que nous avons vu des images de personnes blessées mhm. mais ici à Ziguinchor tey jii a une confrontation féroce entre les jeunes ak les forces de défense et de sécurité. d'accord euh, cest yaa ngi wax sax ñuy dégg ay tëll yu ni mel euh, kon confrontation fi mu am ak euh, fi nga xamante ni mooy kër Ousmane Sonko soriantowul. 200 mètres moins de mètres en ce moment parce que c'est tout autour nag aussi aux alentours du fii kese mais gendarmerie dañuy wër yéen a ngi dégg noonu fi mu ne nii su ma doxee léegi ñu jàkkaarloog les gendarmes mais pour des raisons de sécurité. dañuy def retrait pour mën a def waxtaan bi nga xamante ne ñoo koy am ak yéen pour wax leen la situation qui se présente ici waaye daal li wér te wóor mooy gendarme yi ñu ngi jàkkaarloo à moins de deux cent mille de chez Ousmane waaye nag bouclier bi fa fekk moo leen yéem parce que nag cette fois-ci xale yi waaw mu ngi noonu l'ambiance ne pouvait être euh, mieux que ça yéen a ko déggandoo lii mooy en ce moment li fi nekk depuis ce matin mm. ndëll yooyu ngeen les forces de défense et de sécurité la waaye xale yi dañ leen daan barricadé buñ Ousmane Sonko nekkaan si sa kër góor gi ba du mën a génn cette fois ci c'est le contraire xale yi ñoom ñoo barricadé Ziguinchor xale yi ñoo barricadé les rues xale yi ñoom ñoo barricadé en réalité ñi nga xamante ñoom ñooy gendarmerie ba ñu mën ñoo déplacer comme il comme il le voulait loolu moo tax jusqu'à ce présent on peut considérer qu'en ce moment presque les rues sont barricadées les enfants xale yi les faire face ñi nga xamante ne ñoom ñooy les forces de défense et de sécurité. Mhm. ba tey euh, Sadikh damay des ci yow euh, yaa ngi koy wax léegi euh, xale yi ñëw barricade ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ci biir këram googu déjà gendarmerie ban jafe-jafe la am foofu en fait lan la doon wut foofu ba manifestation yooyu di fa di fa di fa am da da ngeen njortu ni dañ ñëwoon pour arrêter Ousmane Sonko wala te ngeen am information yu vérifié que ni dañ ñëw effectivement pour arrêter Ousmane Sonko. déjà information wu arrestation Ousmane Sonko na Euh, plus de soixante douze heures loolu yéen ñëpp déggandoo ngeen ko ñaareel bi itam moo di ñu gis koo xamante ne nag du ko ndaw muy euh, le le l'ancien procureur de la CREI di Alioune Badara Ndao moom waxoon ne euh, il est fort possible que ñu jàpp si kii président Ousmane Sonko mais hier nuyu aussi ici à Ziguinchor ñu gis cortège boo xamante ne mi ngi jóge Bignona dugg si biir Ziguinchor yooyu yëpp conjugué daf lay wan ne peut-être quelque chose se prépare ou se préparait en tout état de cause xale yi attaqué wuñ kenn ils ont juste barricadé ce qu'il y avait à barricader pour dire que le président Ousmane Sonko ne bougera d'un iota donc ñen ñoo ñëw nag di dóor ay grenades lacrymogènes di jàmmaarloo ak xale yi loolu mooy les forces de défense et de sécurité la police depuis ce matin et incessamment ñi nga xamante ne ñoom ñooy la gendarmerie. d' accord dañ ko doon nemmeeku bu police ñëwee attaqué sànni gaz lacrymogène rek euh, ñu bëri dañ doon dispersé wu est ce que foule bi nga xamante ni moom lañ doon gis ci ay image euh, ci bundu kër Ousmane Sonko foule boobu euh, monde boobu mi ngi foofu ba tey wala dañu wàññeeku. ma ne dèjà pour nga mën a pour nga mën a sànni grenade lacrymogène ci foule foo naa la léegi ne la xale yi barricade wuñ kër Ousmane de déedéet. fi ñu barricadé mooy gendarmerie ci boppam la ñu barricadé ba mënuñoo déplacé wu comme ils le voulaient ils n'ont pas assez d'accès pour mën a sànni des grenades lacrymogènes comme ils le veulent eux donc ils font des lances à distance c'est-à-dire à travers des drones en dire oui nan nan la xale yi procédé ba euh, entre guillemets barricadé gendarmerie nan nañu def ba mun leen tënk ci benn ci benn benn benn poñ waa xale yi na xam nga ñoom li ma fa gis fii comme di dama daa koy faral ñoom dafa mel na ñu tàmm manifester la ñu tàmm résister lañ yoon yëpp la ñu tëj yoon yëpp la ñu tëj à travers des troncs d'arbres à travers ay xeer yu mag lépp loo xamante ne lu ñu mën a utiliser pour tëj ay yoon ils l'ont fait et pas n'importe comment parce que oto mënu fee jaar oto bu fi jaar oto boobu dana yàqu voilà yéen a dégg ndellu googu ñoom à distance rek lañ ko mën a defee gis ngeen voiture blindée blindée je précise bu pono ya mënatul a baax ndaxte li xale yi teg ci kanamam la te voiture blindée la ñuy wax kon waxatuma la ak beneen oto. Mhm. c'est-à-dire dam lay bàyyi rek euh, dernière question mooy ana Ousmane sonk ak ci ban euh, état la nekk jamono ji. ni ko ñëpp xame le courage un homme redoutable très serein il reste le même rien na change dans sa détermination à combattre ce régime injuste et nous sommes tous derrière lui et avec lui. am na ñii naan dafa génn mi ngi côté Burkina euh, xaw ma génne Bissau dafa daw. kàcc koo xamante ne amul ay sources yu baax doo ci tontu. Hmm. Mhm. kon mën nga confirmer que jamono ji Ousmane Sonko mi ngi ci biir këram ak sérénité am. ñu mën a wax daal mooy fi mu ne nii Ousmane Sonko mu ngi ci jàmm ak salaam këram toog di leen seetaan. Hmm. ana leader yi leader yi fa déplacé woon ñëw ku ci mel ni Mimi Touré gis nañ ko moom aussi mu wàcc ci euh, aéroport bi gisoon nañ fa démb euh, ki nga xamante ne mooy Cheikh Tidiane Dieye ak euh, Malick Gakou ki Aïda Mbodj dañ ñëw dem wala dañ toog. waaw ñoom de ñu ngi waaj def sax conférence de presse léegi loolu laa doon waxtaan ak ñoom bi nga may woon yi moo tax ma génn déplacé wu la jox ambiance ci biti bi mais ñoom ñooy waaj de presse léegi ak la presse locale. Mimi mi ngi fii Cheikh Tidiane Dièye mi ngi fii Aïda Mbodj mi ngi fii Malick Gakou mi ngi fii Birame mm-hmm. Souleye Diop mi ngi fii ils vont faire une déclaration incessamment d' accord d' accord cest euh, à maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup Pamata. atia kon ni ngeen ko déggandoo c'est-à-dire euh, top di journaliste ah laata sax mi doon euh, membre Pastef journaliste la euh, moo ñu doon defal le point foofu ca Ziguinchor te effectivement li mu wax aussi boo xoolee ci image yi di circuler ci réseaux sociaux yi da nga koy da koy da koy dëggal da koy confirmer di wane que ni quelque part am na ay mbir yoo xamante ni je pense que ni dara dara jaru ko parce que effectivement maa ngi koy wax léegi ci sama introduction bu ñu ñëwee dañu war a dem ci benn contexte boo xamante ni dialogue waxu jolak dafa am ay situation yu tendu wala da nga nekk ci euh,